bi muy ñëw it ca ca ca yoon wa xam nga yàlla daa tàmm nag di ko feeñalal mbégte yu baree bari ay bëggal yu baree bari yu mu koy bëggal ca yoon wa ca la jinne yu baree bari gëm keroog ci la suñu borom wax ne suñu borom moo ko nekk li wax ko ne ko jinne yi maanaam ci yoon yi benn guddi goo xam doon julli di jàng alxuraan jinne yi ñëw di ko diglu bañ ko digloo nag ba àggal jinne yooyu ñoo dem waar seen mbokk jinne yi ne ah ab yonente ñëw na te itam maanaam li ñuy woote mooy dina ji wér nan dem topp ko maanaam jinne yëpp marché daanaka gëm daal di gëm yonente bi alayhi salaam loolu suñu borom nekk na ko ci ñaari saar suratul ahqaf li mu wax ne wa iz sarafna ilayka nafaran min al jinn yastami'una al qur'ana fa lamma xadaruhu qaalu ansitu maanaam jinne dañ faa romb dem rek dégg yonente bi jàng ñu ne déglu leen nopp noppi leen nu déglu kii li mu wax biñ ko dégloo fa lamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirina bañ ko dégloo ñoom ñoo dem ci seen mbokk jullit ji tàmbali di leen waar qaalu yaa qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna lima bayna yadayhi yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim yaa qawmana ajibu daa'iya allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim ne nun nun daal déglu nañ kàddu kàddu goo xam ni alxuraan la te téereb yàlla la boo xam ni bukkut ak diine ya fi nekkoon diine fi nekkoon fi ne fandiku na tam ne di waar seen mbokki jinne yi ba ñëpp gëm loolu alxuraan wax na ko suuratu jinne itam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min al jinn min al jinn fa qaalu inna sami'na qur'anan ajaban maanaam wax jéenu dëgg wax ji yéemoo yéemu la xam nga alxuraan yénte bi bu ma saa di waar nit bu ñëwee du la wax dara daanaka day tàmbali jàng alxuraan rek alxuraan ñi xam làkk yi te dégg ko te mos ko maanaam dara jenn wax mënut ni moom maanaam maanaam maanaam maanaam suñ tubaab mi nga xam ne moom moo pëstéef ñëpp moom moom sax ne inna tilaawatal kitaab yi mulku maanaam nguur gu rëy la fi maanaam dara ëpp daraja ak ak ak dara gënta kawe maanaam mën a jàng alxuraan di ko dégg inna tilaawatal kitaab yi inna tilaawatal kitaab yi mulku wa huwa liman yabxi najaata fulku du loolu loxal inna tilaawatal kitaab mulku am na wala mi ngoog ñu xalaat ko bu ëllëg ay noonu la ko waxee mooy maanaam ne jàng téere bi ak nguur la ay nguur la goo xam ne yàlla da koy defal da koy baaxee aw nit rek xéewal la goo xam ni maanaam maanaam nit nguur mooy nit ak kawe rek nit kawe na ba tàyyi daraja te aggut ci mën a am xéewal googu jàng ko di ko mos neexitu alxuraan moo tax jinne ñoom bañ ko déggee rek lañ daal di tuub ñoom ñëpp da dugg ci lislaam loolu it xam nga lay daal di dëggal yonente bi yonente bi coono bee ak métti ba mu nekkoon yii fàtt tax na mu daal di fàtte loola ma yàlla wan na ko ne maag maag malayka yi boole naa la ñoom loo neex ñu def ko ci jaam yi nga xam ne bu ne woon faatal waa tey ñëpp faatu ci guddi googu mu xam ne kon yàlla mi ngi fi wetam di ko jàppale ñaare bi itam jinne yi gëm nañ ko moom bu ko nit ñi wedde itam jinne yëpp maase nañ gëm ko ci noonu xam nga ci gàttal rek yonente bi la dem daal duggaat màkk ba muy dugg màkk nag waxoon naa ne màkk boo fa buñ la masaa kii ba nga génn fa boo fay duggaat faw nit a lay làq lu ko muy boole ngaa dugg dañ lay dab faat la ba muy dem nag ci gàttal ki ñuy wax Mut'im moom mooy ki ko ki ko làq ba mën a duggaat màkk ci loolu itam yonente bi alayhi salaatu salaam la woy ca biti makka dëkk yi jege makka ak giir yeneen jege mu ne fenn fu ne mu dem fa wax leen mbirum lislaam bokk na ca giir yooyu mën naa cee lim banu amir ibnu sa'sa'ata ak muharib ibnu xafsa ak fazazata ak ghassan ak murrata ak xanifa ak sulaym abs banu nadr banu buka banu kindata banu kalb alxaaris ibnu kaab ak usrata ak xadaarima ñoo ñëpp ay giir lañ yoo xam ne fu ci ne yonte bi dem na fa gaaral leen lislaam ak li ko yàlla yónni ñoom ñëpp ñu maase kenn topp ko ci ba léegi fu mu dem rek am na ñoo xam ne sax dañ ko wax wax joo xam ni kenn mun ko dégg am na ci ñoo xam ne moom mbirum àdduna lañ ko gisee mooy lu mel ne banu banu banu amir banu amir ibnu saxsaxata ñoom bañ demee ba mu demee dajale leen wax ak ñoom ba àggal dañ ne ko waaw fekk am na kenn ci ñoom koo xam ne ku ku ku yaw la ku ñëw bu xayra ibnu firas dafa wax ni waa jii de man su bokkoon sama giir gi arab yëpp naa leen moom ndax li li mu wax ni maanaam projet ngi ci ci misaal ma sa kon ci noonu la bokk maanaam daan tax ba arab yëpp nekk suñ maanaam naa leen moom ñun ñëpp daan ne ko waaw yow sëñ bi suñ la toppee ba mbir mépp nekk sa loxo ñëpp gëm nga jiitu soo fi jógee xilaafa gi maanaam ku lay wutu ku moom say mbokk lay wutu wax màkk am noonu nu muy demee yéen tamit ne ma mbiru xilaaf ma xilaafa ma toxu ma waaw maanaam lii ma dal yàlla ma ko yónni soo fi jógee ku ku mu neex yàlla moom la koy jox mu wéyal ko mu ne ko lool nag waa ji ne ko lool nag duñ ko def ndax yow fi ne mën nga fay jógee say mbokk bëgg a yor mbir yi loolu moo tax noonu kay bu fekkee doon nag ni ci wutal cër bu mag boo xam ne boo fay jógee nu mën a yilif nu mën laa topp waaye bu dul loolu du la mën a topp mukk maanaam nga gis ne ñooñu mbirum adduna ak projet bi adduna lañ ko gise woon moo tax giir giir yooyu yëpp mën naa ne kenn gëmu ci teewul nag yonte bi daana def it kenn ku mu xam yonte bi boobu mënta génn dëkk bi waaye ku fa ñëw ca dëkk ba rek dana la gàttandu wax yow ci lislaam bari nag ay benn benn yoo xam ne moom jot nañoo tuub dugg ci lislaam bokk na ca ki ñuy wax Suwayd ibnu Saamit nekkoon ab waykat bu bari xel bu ñëpp wormaal nga xam ne moom dañuy jàpp ne ku ko gën a mat amut moom Madina la dëkkoon benn bis bu ñëw Màkka yonente bi tàmbali daf ko di wax ak moom ci lislaam mu ne ko waaw yow di dégg naa sa mbir maa ngi yow ku ci gën leen loo yor yonte bi noonu loo ne ko loo yor mu ne ko man de xikam yi kii jaamu yàlla boobu luqmaan xikam yi luqmaan yëpp laa bokkal tàmbalee wax wax wax ba mu àggale yonte bi ne ko loolu de bokkut ak li ma yor man ak li ma lay woo jëme man alquran ci boobu la yàlla wax yàlla ci boobu mooy wax wax joo xam ni mooy alquran mu jaar la ko ci man di ko wax mbindeef yëpp ba mu tàmbalee jàng wax wax ba àggal jàng ay aaya rek la waaji ne ah li nga wax de wax dëgg yàlla bokkut ak jeneen wax bi ci la daal tuube moom moom Suwayd moom ibnu Samit bokk na ci ki ñuy wax Iyaas ibnu Muas moom it moom it xale la woon boo xam ni waa Madina ñoo ko yónnoon booba xam nga aws ak xasraj am na xeex bu dugg bu dee seen diggante boo xam ne wala yax boas xare boas xare boobu nag bañ koy waaj a jub aws waa aws dañu yónnoon màkk bëggoon ñu jàppale leen ñoom ndax xasal dañu leen ëpp ñañ fa yónni woon nag délégation ba ñuy wax ak màkk ba ba génn yónnte bi da leen a dab di leen leeral mbirum lislaam ne leen yéen kat xaar leen ma wax ne lu gën li ngeen di dox lépp mbiri xeexa yooyu ngeen dox tam la di leen leeral lislaam ba mu àggalee Iyaas ibnu Muaz daal ne yow de wax dëgg yàlla lii ngay woote nii wax dëgg yàlla moo gën moo moo gën lépp yii nu nekk daal ay caaxaan ba mu ko waxee mbokk yee daal di jël jël suuf rek këpp ko ko ne ko yow sëñ bi li nga wax nun li taxoonoo jóg daal di dem moom kon moom it tuuboo na ak ñu bare bare bari ku mel ne Abu Dharr al-Ghaffari moom ñe ña dëkk Madina Iyaas mii ak Suwayd moom nga xam ne Madina lañ dëkk te la déggee ci ñoom la déggee xibaar bi xibaaru lislaam tàmbali di ko di ko gëstu ba mu ci amee lu leer ci ne yonente bi day woote jëme ci jenn diine maanaam ñu gëm yàlla kese bàyyi xërëm yi fekk moom xërëm la daa jàmm wax ni ne sax ne fa mu bàyyee xërëm yi mooy xërëm yi xam nga waxoon naa ne dañ ko daa jaay leen yi boo bëggee boo bëggee wërsëg xërëm bii la nga jël ko def sa saak nga xam ne foo dem yóbbale ko waaw danañ ko defee liñ ko wax lii Seydina Omar daa wax na lañ ko defee ci mburu nga xam ne léeg-léeg boo nekkee ci àll yi ba jaaxle ba jaaxle doo am loolee xërëm bi rek moom moo fi ne nga xam da ngay mujj rek xewloo ko fan la Abu Dharr al-Ghafari nag dafa mas a dem ci àll nekk ci àll bi xërëm bi xërëm bi mu yoroon ne suñ ko teg nii génn dem di fekk ak ci li jaar fi ba saw xërëm bi bi ñëwee tiim ko nag gis till bi till gi saw ko mu ne daal di wax dëgg yàlla neexut neexut du yàlla yàlla rabbun yabudu saxla baanu bi rasihi laqad maana man baalat alayhi saalibu maanaam yàlla joo xam ne ci lu dafay jaar saw ci bopp bi ba mu fees mu dem nu ko neex kooku du yàlla cella moom it nekk di gëstu ba mu ñëwee ci yonent bi soo njëkkee toog yonent bi lu gudd la mënoon naa ko net waaye dama ko bañ a guddal ba mu ñëwee ba mu njëkkee toog yonent ba mu toogee yonent bi rek la daal di gëm yénte bi nag ne ko man ngaa nëbbu sa ngëm ndax waa màkk bu ñu xamee ci yow ne gëm nga rek dañ la dañ la duma mu ne ko duma ko nëbb dama koy fexe bu ma génnee rek leer leen ko ñun ñëpp penc ma ba mu génnee itam la wax waa yéen waa Makka man day jëbbalu naa tàmbale wax rek gaañu fekk ko fa di ko dóor di ko dóor fu ne aw dóor fekk ko ba Seydina Abbas mi bàyyi bu ndaw yéen tey moo ko fekk ne leen yéen kat yéen a ngi def lu ngeen xamul kii giir gi mu dëkk muy xafaar ci yoonu maanaam maanaam Madina la te bu ngeen di jëndi marchandise foofu ngeen di jaar su ngeen ko faateelee buntu leen a jëndi marchandise bu ngeen fa jaarlee ci àll rek gars yi dañ ko nangu ñu daal di koy bàyyi mu daal ñibbi kon ay benn benn laa bëggoon wax daan nañ tuub mënoon naa ci lim yu bare bari ba benn bis nag aju fukkeel fukki at ak fukki bi ñëwee ba ci fukkeeli at ak benn ca aj ga nag ca la juróom benn nit yu jóge woon Madina ñëw ñooñee xam nga fala diggante jokkaloo gi yonente bi ak Madina tàmbalee juróom benn yooyu mooy Ash'ath ibnu Zararata ak Awf ibnu al-Harith ak Rafi ibnu Malik Tutba ibnu Amir Uqba ibnu Amir ak Jabir ibnu Abdillahi ñoom juróom benn yi yonente bi daa def moom na mu ko daa def rek yonente bi moom daa def marché bu am dana ne Abubakar nan dem nu dem mu dem ca marché ba taxaw di leeral waa marché bi loolu kenn ku ko lisaab jaaram dati boo fi ne ni am yonte bi li ko li ko li ko maanaam maanaam moom it posté bu am ci jot li li ko yàlla yónni kenn mësu ko gis loolu tey ji ku ko def dañ jàpp ne da nga da nga sa xel neexut dem ci marché bi leeral waa marché bi mbirum diine ak lislaam jàngal leen ni ñuy jàpp ni ñuy jàng ni ñuy sàngu fal loolu loolu kenn ku nekk kenn ku nekk ci mësu nga ko daal yonte bi nag noonu la ko daa defee moom bi aj bi ñëwee itam danaa def danaa def guddi laa dem ndax bu ma saa dem bëccëg waa Màkka dañ koy topp di ko di ko yàqal ak di ko wax lu kenn xamul waxoon naa ne Abu Lahab bàyyam bu ndaw boobu moom da ko daa topp su waxee ba àggal mu ne déglu leen mbooloo mi ma wax leen benn baat mooy kii li mu wax ni bu leen ko déglu sama ndoomu maa ko yar xel mi ci boobu moo neexul bu leen bu leen déglu lan ci li mu wax waaw moom jër jër ta déglu danoo të rek daa tëj ay bokkam wax a wax ba ba kenn dégg li mu wax aj aj gi nag yonente bi daa bàyyi ba guddi mu wax Abubakar ne ko nan dem bañ demee mu mu tase giir yu bare bari wax leen mbirum lislaam ñoom ñëpp daanaka ñu lànk bi ñëwee nag ci wetu minan fekk foofa juróom benn ñeema waxoon jóge Madina foofa lañ nekk foofa lañ daloon ñoom yonente bi daa dégg rek maanaam fañ ne daa dégg seen wax ji mu daal di ñëw jàdd fa ne leen waaw yéen fu ngeen dëkk fu ngeen dëkk nu ko noonu de ay waxambaane la ñu dëkk fu ñuy wax yasrib xam nga yasrib la la madina tuddoon yonente bi ba mu fa ñëwee lañ ko tax di tàmbale tudde madina rasul mooy dëkkub yonente bi waaye ba mu fa daataa ñëw yasrib lañ ko daa ñoom ñëpp ci waa xasraj la bokk lañ bokkoon yonente bi ne leen waaw yéen yéen a dëkkub yéen yéen ak yahood yi yéen a dëkk de ñu ne ko waaw noog yahood yi dëkk fekk loolu xéewal la ci ndax yahood yi ñoom xamoon nañ ne yonente dana dëkk daanañ wax sax waa waa Madina ne leen waa Yasrib ne leen yonente bi waa ñëw bis bu ñëwee noonu lay àndal te yéen ñëpp nañ leen saagagal faat leen yéen ñëpp yonente bi yàlla dogal ginnaaw daanañ ko wax ba waa dëkk bépp xam ko moo tax juróom-benn ñi digg nañ dégg nañ mbirum yonente bi moo tax yonente bi keroog ba mu leen ne yéen ak yoxoot yee dëkk ñu ne ko waaw mu tàmbali nag di leen leeral mbirum lislaam ba mu leen leeralee ñoom ñëpp ñu far gëm juróom-benn ñoom ñëpp ndax ñoom dañoo daal xalaat xam ne kat lii la kii la yahood yi daa wax léegi nañ ci njëkk yahood yi nan nañ leen njëkk nan ko njëkk gëm su ko dee yahood yi ñoom maanaam ñu njëkk leen ci ginnaaw ñoom daanañu wax ne bu yahood bu mu yonent bi ñëwee dañuy ànd ak moom faat leen léegi nan ko ci nan leen ci njëkk ñoom juróom benn yee nag bañ gëmee ñooñu ñu barke ñu yàlla barkeel lañ ndax ci la mujj dëkk ba yëpp fi ne ci lañ jaare gëm bokk na ci lañ wax yonent mooy dañ ne ko yokkat lii ngay woote sax nag lu dara nun dëkk bañ dëkk ay xuloo dafa bari ak xeex kenn di wuutal si morom kër gu ne di dëkk sa morom yow ngi ñaan yàlla sa diine ji dëkk bépp nangu ko suñu waa dëkk ba ndax dana tax nu doon benn ba bàyyi xeex diñ daa xeex ñoom nag bañ delloo nag dañuy farlu topp waa dëkk ba di leen leeral mbirum sayidna muhammad ak mbirum lislaam mujj waa dëkk ba daal te kër ñëpp a xam sayidna muhammad mi ngoog bañ del see ca déwénte rek juróom benn fukk lañ wala juróom-ñaar fukk danaa ci ñëw insha allah ci kanam bañ déwén sa ca déwén sa juróom benn fukk lañ wala juróom-ñaar fukk danaa ci ñëw léegi ci kanam